asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mooy kàddu yi ni ni jiite suñu kàddu mooy di tuubal suñu moom tabaaraka wa taala di tuubal ko tax bind tuubal suñu doo serwaat ci baatu ndigal ba nga xam ne daa te eh, su suñu des nag ñun ndax noo yaakaar ni kii wax ak noonu daa ñetti waxtu ba fukki waxtu ci guddi ndekk juróom-ñetti waxtu ba fukki waxtu ci suba rek la loolu ñaari waxtu la sekkati ko ñaari waxtu lim daan doon ñaari fan ba ak fukki ña juróom-ñetti waxtu ba juróom-ñaari waxtu ba fukki waxtu nag moo tax ma yaakaar sax man fukki waxtu gudd la waaye man noo tuubal yàlla dina tuubal nag mboolem ku dégg ku sa ku sa ku sa nopp déggoon suñu kàddu gi rek ba noppi noo tuubal yow nga xam ne li ko sëñ bëggee mooy juróom-ñetti waxtu rek ci suba mooy huit heures ba dix heures suba loolu nag si kaas kon tur yàlla ñaari waxtu rek lay doon kon ñaari waxtu naa kon ñi fab xasee day soog a tàmbalee ak ñoom waaye noonu ko mën a waxee rek waaye no ku jot kàddu yi nañ dimbalaan li la waxoon na woo kam ko joxoon ni ko rek kàddu yi kat du yooyee mooy yéen tu baax te jégalu te te ñaan ngeen jégal nu déglu métti na dégg métti na kon nag dégg kàddu suñu bana fi nañ ko waxee woon du noonu noonu tuba yàlla den tuba rek ñu tuba sëñ bi den tuba kon daal ajuma la waaye juróom-ñetti waxtu ci suba ba fukki waxtu ci suba rek muy ñaari waxtu rek ñaari waxtu yi rek la bëgg ñu tudd yàlla kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel rek ak jàppandal ak la suñu tudd yàlla ba dénte ci sëñ bi tamit la lam ndigal a gën noonu kon sunu seen saa rek doy nañu loolu ren ba déen doy nañu ñaari waxtu la wax na kon na nan jotuwaat kàddu yi rek man ma man ko jotuwaat ñoo waxoon ñëpp te di leen tuubal nag dégg nga xam ne dégg ngeen loo xam ne digalul ma ko maa ngi ci wut yàlla di dugal